donc euh, stratégie euh, arnaque yi nga xamante ne moom la xale yi di def jëmale ko ci seen parents yi ci année scolaire moom ngay siiwal. xaj yi nag ñu may joxaseeg xale yi xaj yi euh, comme ni nga ko waxee léegi dóor yi tàmbalee ci xam nga parents yi comme ni ma ko waxee sànq dañu am habitude naan euh, yàkkamti naa école ubbi ba xale yi dem jàngi pour ñu féex mhm. mais bu dee xale a ndaw yi la sax amul xamante ni ñoo ngi commencé nekk collège ak ñi nga xam ne nekk lycée ñu ngi ciy def ay affaires yoo xamante ni xale dafa doy waar bu fekkente da nga am parent boo xamante ni ni euh, du faral di dem sa école di xool li nga xamante ni moom ngay def di xool sa emploi du temps di xool say say li ngay jàngee ba xam yaa ngi def ay cours normalement danga koy da nga koy yomba da nga koy yomba dóor te xale comme dañoo capable am fit amee nañ façon stratégie bu ne te comme jaar nañ ci war nañu mën a xam euh, li nga xamante ni xale yi ñu ngi koy def ci biir école yi ne veut pas dire que ne dañ ko doon def mais jaar nañ ci parce que mhm. jàng nañ école balaa ñuy toog naa ni Fatouche li muy wax yëpp daf koy def dafa am ñu dëgër fit <laughs> waaw xadi cause yi même bu fekkante vacance la foofu laay njëkk commencé bu fekkentee vacances la mhm. euh, dañu doon dem di liggéey yi au moins bu école ibbee dinañ am benn suuf boo xamante ni lépp lu ñu bëgg dinañ ko dinañ ko mën a am mhm. mais bu fekkee da nga am parents yoo xamante ni amaana ba bu école desee un mois ñu ngi ñu ngi tës tësi pour bëgg seen pour bëgg li ñu leen inscrire école pour bëgg lu ñu leen jëndalee seeni fourniture mhm. bu fekkante xale bi bokkul ci xale yi doylu yi eh, dafay metti ci moom donc bu fekkante eh, vacances yi liggéeyoo euh, te loolu yëpp bëgg ko ci école bi donc tu es nga def yenn stratégie moom mooy xaalis bi xale dañu bëgg xaalis tellement que bu ñu ko amul euh, lu ne la leen koy jaxal pour ñu def ko mhm. te bu fekkante en général parents yi nga xamante ni jànguñu école dañuy sonn ci seen jàngu doom yi mhm. loo ñëw laaj sa doom daf la koy loolu la sa doom laaj danga ko koy jox euh, Euh, bu demee ñëw école ñëw laaj parce que jàngoo pour yow li li la sa yaay dugalul école wala sa papa dugalul la ko da ngay rattrapé wu ci sa doom du coup xale bu fekkantee xam na ni yow euh, amoo intelligence xamoo ni xam na ni yow xamoo dara ci école donc pour mu nax la yow dafay yomb moom mooy xaalis bi dinañ ko laajee côté bu nekk xadi mm-hmm. bi ma njëkkee dugg moom mooy ci habillement yi d'abord parce que bu fekkente sa yaay njëgu ñaari jean la am ak ñaari body pour année scolaire bi wala pour début bi yow bu fekkente déjà ouverture bi chaque jour yéeru bu bees nga bugg sol bu fekkente dafa am concurrence ci école bi bu fekkente classe a dafay a danse mhm. fekkee nag fa am far mu mu mu nekk beneen problème mu gën a metti parce que seen doxaan yu euh, début bi dafay xaw a xaw a doy waar ba nga xamante ni xale bi da nga koy danga koy jaral lu ne mhm. ñu waxee dëgg léegi école yi boo fa duggee tu as l' impression que ne que bu fekkente blouse yi ñeen exigé tamit bu ñu dugg ci biir école bi lañ koy sol bu ñu mm. euh, forcément li ñuy sañsee noo def ñu ñu génne ko même tenue yi bu dee jupe dañ koy dagg ba mu gàtt wala ñu font wane seen i tànk chaque jour ñu sol benn dàll bu bees chaque jour ñu changé seen bopp te seen conroy amuñu ko dafay dafay metti xat yi te gisatoo euh, bu njëkk ba da doon gis benn élève buy jàngee jean une semaine samedi dimanche yaayam fóot ko lundi mu xëyaat jàngewaat ko mais léegi ak élèves yi ma gis chaque jour chaque jour benn benn benn yére bu bees mhm. moo xam jiin la moo xam te li ñuy li ñuy sol sax seen yaay yi duñu xam duñu xam fu ñu ko jëlee bëgg nañ une semaine bu ne ñu dem lettu bëgg nañ lu ne ñu dem changer ji ko du coup dafay a metti ci seen poosu parent ba nga xamante ni ñoom mënul ñu leen ko laaj directement parce que sa parent buy sonn ci nga jàng nga ñëw naan ko tey jox ma jean tey jox ma nangam tey jox ma sàngam il faut ñu def ay dil yoo xamante ni dinañ mën a jël xaalis ba dem am fu ñu ko dugal seen parent yi duñu ci xam dara Khady moom mooy habillement bi mooy mode bi nga xamante ni topp nañ ko ak concurrence yi nga xam ne également moom moo nekk ci ci ci yi ak euh, manque de surveillance bi Khady man foofu laay foofu laay wax parce que mënoo yor sa doom mu ñëw ne la temps laay inscrit nga jox ko temps lañ ma bindal fourniture nga jox ko commencé na jàng am na ñoo xam ne xamuñu seen doom ban classe lay jàngee su ñëwee ci école bi dañuy laajte seen turu doom mais xamuñu ban la mm-hmm. yi nga xamante ni dañoo mën naa bañ a jàng mais dinaa surveiller sama doom quand même nga nga gis benn professeur bu nee la diw jàngal naa ko année bi yëpp mosuma gis yaayam te loolu erreur la je pense que ouverture gis sa doom prof yëpp yi mu am pour nga waxtaan ak ñoom au moins boo toogee quelque temps nga jaaraat wax sa doom ba xam mi ngi progressé ba xam mi ngi ñëw ba xam mi ngi régulier juste pour yow nga xam après soo demee sa kër naka ngay naka ngay yeree sa doom mm-hmm. mais bu fekkente huit heures jour na mu jël saagam dem jàngi heure wàccam jot na mu ñu wàcc te leer na la ne ñu ci bari demuñu demuñu école jàngi xadi mm-hmm. beneen bi moom mooy inscription yi xadi am na ci élèves yoo xamante ne ba janvier du ñu inscrire ba janvier surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo dugal seen doom yi ci école privée parce que ñu ci bëri seen yaaye xadi boo yeewoo 8 gis nga leen ñuy jaayante ci car rapide di dem jëndi jëndi jaay mhm. ñu ci bëri seen yaaye bu ñu yeewoo faja ñu ngi dem syndicat juste pour seen doom yi mhm. parce que bëgguñu seen doom sax ñoom nekk école école école publique bëgg nañ seen doom nekk école privée mais amaana xamuñu seen doom ñaata ñaata mba xam mi ngi jàngi mhm. xamuñu ko parce que boo leen joxee inscription yi dañuy dem jëlee ko defee ci lu leen neex parce que inscription bu fekkente mois bi ngay inscrit mois boobu ngay commencé di fay bu dee octobre nga ubbi octobre bi inscrit woo doo ko fay. ba janvier xaalis boobu yëpp nga lekk ko ba janvier nga dajale dem inscrire commencé janvier jàng maanaam ci bëri xamuñu seen doom dañuy toog ba janvier duñ jàng buñ demee retard commencé di recopier yow doo ci xam dar mu nekk système boo xamante ni nii xadi xale ñu ngi ci utee xaalis ci anam bu nekk mm-hmm. te ñu ngi ñu ngi benn man bi ma gën a metti moom mooy seen euh, seen fourniture yi ñuy copier jox ko tata xadi colonel jox ko madame Oumou jox ko non xale ñi ngi utee xaalis noo xam ne yow da nga naan kii est xale ak nit ki dara wala yaayam leeru la da mhm. moom mooy indi loolu mhm. stratégie yi nag xadi colonel euh, moom mooy euh, li ma wax léegi ñi ñu ci bari dañuy gonfler seen euh, fourniture yi dañuy ñëw di naan jëndal ma dañuy dem bind ci bu waree am 5 cahier ñu bindal la 10 10 cahier lañ lay bind parce que bu fekkentee cahier yu mag yi la bu dee collège nga nekk cahier yi dafay cher dafay def ay 1500 1000 francs léegi bu fekkentee 5 la nga def ci 10 loolu mën na la jëndal benn jean bu fekkentee da nga ñëw ne jaay ma euh, billet de sortie dañ ma bindal billet de sortie billet de sortie benn 500 la dañ koy wax biir ñu bind billet de sortie benn 500 comme par exemple ñu ne la euh, da nga ciy jënd 5 wala 6 billet de sortie billet de sortie ñu koy jaayee. mosula billet d'entrée dañ koy bind léegi. Uh-huh. dañ lay bindloo loo xamante ni yow da nga lii lan moo euh, surtout mag livre anglais yi moom ñu ngi ci na yu bari dañuy ñëw wax la tour boo xam ne anglais la xam nga ci dara te complexé nga xam nga bu njëkk suñu yaay boo leen bindalaan fourniture dañuy dem marché samedi. par terre ñuy dem buñ demee téye feuille bi jox ko kiy jaay mu wërale ko ci suuf léegi xale yi ñoo jël seen responsabilité boobu dañuy ñëw ne la livre bi 3000 3000 parce que tem ñu ne la soo demee dafay gën a cher te xam nga loolu la ah, daw léegi dañ lay jox 3000 yi nga dem téye ko mm-hmm. bu bu mois deux mois ñu ñëwaat ne papa laajal nañ ma livre naa yi won won lay jar papa laaj nañ ma nangam te yooyu noonu ñuy dajale am na même ñuy naxa seen parents yi EPS e alors que EPS mosul am cahier amul cahier EPS e dañ ciy laaj ak ak ak ak certificat de je sais am na benn cahier boo xamante ni 500 lay jar carnet de notes yi. carnet de notes da ko doon jënd 2000 francs nee na chaque mois. da koy jënd parce que nee na bosom day fees euh, kii na également ñu euh, wax nañ mu defar extrait wax nañ mu nangam. Mm-hmm. donc xale yi ñuy lijjantee xaalis. Mm-hmm. mais parents yu sàggan yi rek ñoom ñoo koy def bu mm-hmm. fekkente yow sama doom nga man maa la jur. que sàggan la est-ce que du xër. non non par exemple ñi jàngul da ngay bëgg tellement sa doom réussir que. waaye xadi yenn sàggan la parce que sama doom du nekk mag mag ba du nekk sama doom danaa jàpp ci sa loxo ngay ngay ngay ngay majeur di di a gérer sa bopp dinaa jàpp sa loxo yóbbu la école xam ne xam dinaa xam ni ngay inscrire xam naa classe déjà bi ngay jàngee man heure bu ma ko bëggee ñëw du ma la tàggu damay ñëw classe xool ba xam yaa ngi jàng wala jàngu mais xale boo yóbbul muy inscrire est-ce que xam nga classe ba muy jàngee mënoo ko xam xale boo yóbbul muy inscrire est-ce xam nga ñaata lay inscrire mënoo ko xam xale yi léegi dañuy dem blouse dañ ci fayeeku seen temps waaye loolu rek wala bu fekkente la lay gën a metti dañ koy jël euh, école yi ñu ci bari dañu dañu koy def par tranche chaque mois nga am loo joxe bu fekkante kii bi dafa cher mm-hmm. mais ñu ngi laaj seen parents yoo xamante ni amuñu sax ci ñoom yërmande mm-hmm. te parent bi il suffit que mu gis nga sa soutenu rek kontaan na donc loolu loo ko laaj mu jox la ko nañ def attention bu baax a baax a baax genre xadi colonel yi ñu ngi ci dëkk bi euh, commencé nañ euh, seen trafic yi parents yu ci bëri ñu ngi jàpp que ni ñoom am nañ jàmm daal nañ xale bi dem te xamuñu fu xale bi jëm te or loolu moom moo gën a dangereux bu ñu xëyatee nañu jóg ci suñu doom yi xool ban classe ay jàngee di xool fourniture jëlal fourniture dañ koy bind bind ko nga jël nga yem yóbbu jënd ko yoo xam ne sax jarul ñu lay bind fourniture déjà yow xam nga li ngay soxla mhm. xam nga yi ngay def xanaa yow doo toog nga ne sa doom dina de vingt matière mhm. wala plus de dix matière et mhm. xam matière yu muy def donc dama jëndal ko kay yooyu également nga ñëw nga ñëw indi ko beneen bi xadi colonel mooy xale yi jigéen yi nga xamante ni seen parents yi xamuñu sax ban école la ñuy jàngee là c'est encore am na ñoo xam ne seen parents xamuñu ban école la ñuy jàngee mën nañ la déclarer benn école mën nañ la dé c'est vrai parce que des fois nga laaj benn nit ban école lay jàngee mais soo xoolee euh, kii kii moom euh, carte d'accès carte d'accès nekkul benn école non mais am na ñoo xam ne yow madame Oumou seen doom yi dañ leen déclarer que ne école privée euh, publique la ñuy jàngee oo ko ñu ngi nekk privé te xamuñu ku leen di fayal amuñu ku leen koy fayal donc loolu mu nekk loo xam ne ma responsabilité parents laa ko laa ko jàppee parce que sa doom tant que demul université waroo ko bàyyi muy dem inscrire boppam mu ne day dem inscrire boppam bu ñëwee laaj la lu la neex même bu dee ko jub wóolu nga sa doom mais demal pour nga xam kii fan lay jàngee nga teg ko ci ay loxo yu wóor